أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين loolu nag nuyu mbokki jullit yëpp di dellu di dénkante ak ñoom di dellu di fàttalante ak ñoom ngir jëmmi sunu borom subhanahu wa taala ndax ay jullit yëpp ku nu daje war na ñuy fàttalante ak a dénkante loo xam ne dana leen jariñ seenu nekkin ci àdduna waaye dana leen jariñ bis bu ñuy xëy di gental àdduna di ko wan gannaaw jëm ci këru dëgg ga su boobaay danañ fa fekk lu leen di jariñ mooy li ko tàmbalee ci seen wàccuwaay bu njëkk njëkk seen roo di teqalikoo seen jëmm foofu ñuy tëdd war a génn àdduna di xool seen xool bu mujj ci li leen wër ak ci ñi leen wër mu wër leen ni kër gi ñu nekkoon saytaane daan leen ci xiir mu leen daan woon ay nëtëx nëtëxam ñu daan ko jàpp tey lañ koy wan gannaaw souvent su fekkonte ni jàmm bi ko bàyyi woon xol jataay boobu la te du jaar ci jenn jëmm jum man di doon dana fa dajeeg yi wudul jeex ndax leerum nga ba mooy dox digganteem ak seytaane ak naqar ak tiis ak metti boobu yi niki noonu it ay jullit fépp fu nu dajee bu ñu fàttalante li leen di jëriñ ci àdduna di fàttalante jat jataay boobu yi ak la ca aju ak wàccuwaay bu njëkk muy bàmmeel bu nit ki génnee àdduna ak taxawaayu bis penc ba te yooyu mooy li nga xamante ni mooy liy sax te mooy li wér ndax àdduna jaam bu ne ab diir rek la fiy def te ñàkk solo ko àdduna jaam bi ku mu xëyee rek war na koo mën a yëg war na koo mën a xam su fekkente ni boroom xel la li nga xamante ni alxuraanul karim boroom xel yi rek lay waxal ndax jëmm ju mën di doon fi nga toll li nga weesu lépp bu doon kàddu goo dégg la gu la neexoon wala loolu lekkoon wala foo jaaroon ci bànneex ak lépp lu mën di doon boo ko seetloo fi nga toog lépp lu ci weesu démb yëgatoo ci dara bu doon lu neex loo lekkoon la wala loo jëfandikoo woon la lu mu mën di doon rek boo ko seetloo fi nga toog yëgatoo ci dara loolu nag misaal la ci àdduna mooy tax kër gi kër la ko képp ku fi nekk war nga koy bàyyi xel bu baax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni nekkal ci àdduna mel ni kuy jéggi aw yoon niñ ko daan waxee it ñoo ngi ci téere bu ñu wax nahdul xaba il xaaj ngirum faj aajo muy téere boo xamante ni ci ay teggin lay wax ngir jàmm bi mën a jariñu tey ak ëllëg yoon wi nga xamante ni bu ci jaaree digganteem ak boroomam mu man cee làq ngërëmam mu yéwén waaye digganteek moroomam it mën a yéwén te yonent yëpp bi ñuy dikk ci kaw suuf li leen fi indi mooy yar nit ki ci digganteem ak boroomam ba mu takkaayo melo yu boroomam subhaanahu wa taala gërëm ci moom waaye yar ko it ba mu takkaayoo melo yi nga xamante ni moom la suñ borom bi subhanahu wa taala gërëm ci seen diggante ngir ñu mën a jëflantee noonu yonent yi doon ñëw yëpp loolu rek lañ doon jàngale nit yàlla it loolu rek lañ doon jàngale njëkk loolu it ñu ñëw ci sóoratu yusuf yusuf yonent yàlla yusuf di yonent boo xamante ni yonent bu suñ borom subhanahu wa taala defal ay tawfeex la waaye tawfeex yi njëkk muy yegsi ci moom ku muñoon la nattu yi nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala doon na ko ko teg moo tax benn aaya wala mujjantalu benn aaya aaya bi juróom-ñeent fukk ak benn innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiyu ajra al muhsinin képp koo xamante ni sange na xolom ci lépp lu suñ borom bi subhanahu wa taala gërëmut sange kàddoom ci lépp lu suñ borom bi subhanahu wa taala gërëmut sange ay cëram ci lépp lu suñ borom bi subhanahu wa taala gërëmut boole ca muñ ndax nit ki su fekkente ni dafa jox boppam boroomam subhaanahu wa taala tënku ci ay ndigalam teer ay tereem jox sa bopp sa borom it yaa ngi koy jaarale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ku teg tànkam fam ko tegoon nga tàllal sa yaari loxo wax ay kàddu muy mubaayaxa muy jaayante ngir jëm yàlla jox sun borom sa bopp ak sa alal ak sa lépp jaarale ko ci jëmm jooji su fekkente ni jëmm ji dafa def loolu yi ñu koy jot li ndigali suñ borom bi subhaanahu wa taala ndigal yooyee fu mu fépp fu mu taxawee rek moom waratuta am bëgg-bëgg waratuta am xalaat waratuta am gis-gis lu may tënku ca ndigal yooyee moo tax suñ borom ni képp koo xamante ni tënku na ci ndigal yooyu boole ca muñ ndax nit ki su defee loolu it muñ daf cay toll ndax suñ borom su fekkente ni bala lay tànn daf lay nattu ba xam yow lii nga wax dëgg la ci yow wala déet boo seetloo yonent yàlla yuusufa nag suñ borom dafa judduwaale ak nubbuwa ab yonent la waaye dafa judduwaale ak nubbuwa yonent yàlla yanqooba di baayam bi nga xamante ni suñ borom subhaanahu wa taala nam mën naa def loolu ci moom it te loolu féttagut ci moom it ku jaar ci ay xat-xat la yu metti yu tar nga xam ne bi nga xamante ni mbir mi mi ngi ko njëkk a dikke ci gént ndax dafa gént gis lu tolloog fukki biddiw ak jant bi ak weer wi fukki biddiw ak ñaar ak jant bi ak weer wi ñu di ko sujjóotal mu ñëw nett li ko baayam di yonante di yonante yàlla yanquba bi mu ko ko xamalee it mu ne ko sa gént gu gii day bul ko nett li say bokk ndax boo leen ko nettalee kat mën nañ laa fexeel ndax booba gént dafa nekk ab xaaj ci nubuwa géntu nit ku baax ñaare lu suñ borom feeñal la ci moom bi nga xamante ni gént na loolu yi bàyyam na ko loolu yi kat na nga ko denc bàyyam it bi mu yëgee loolu ci moom it tax na moom itam mbëggeelam mel ni gën naa fis ci moom ba fiiraangee doomi bàyyam yooyu yi te doomi bàyyam yooyu it kenn ku ci nekk it boromub cër la woon ci suñ borom subhaanahu wa taala waaye seen fiiraange ak seenu kañaan taxoon na it ñu bëggoon a àgg ci rey ko ngir bëgg a wéet ak seen bàyyi ba nga xamante ni noonu seen bàyyi jeng woon ci moom léegi ñoom ñooy féetewoo loola lépp boo ko seetloo ci lañ tërale woon pexe yooyu ñu doon tëral ba ba dem mu ne ko mu wax waxtaan ak seen bàyyi ngir bëgg bu ñuy demee ca àll ba di sàmmi wala ñuy foyi mu mën a ànd ak ñoom. nga xamante ni bañ yeggee ci lañ tëral seen i pexe ñii ne nañ ko rey ñii ne nañ ko sànni ci kàmb gi. bañ ko fa sànnee it tëral pexe moo xamante ni moom la ñuy wax seen bàyyi bu ñu yeggee ci la ñuy jëlee ay yéreem waaye ab gàtt taqal ko ca deret bi ñëwee ci baayam seen bàyyi xamal na ko daal Yuusufa daal dañ doon fo booba gone la moom xëy na mënut ànd ci daw beeg yëngu beeg kërti kërti ji ñu bàyyi ko fi nga xamante ni xindamataaxi naa maanaam fi ñu tegoon seen i cummikaay maanaam seen i yére ak seen i bagage ak yooyu yëpp daal bi ñëwee ba war a ko bagage yi ñu yoroon ak saag yeeg yëpp fi nga xamante ni fi lañ ko bàyyi woon dafa mel ni rek dañ na ko toog fi toogal fii mu ne nag foofa fa la ko tilli ga fekk rey ko waaye bàyyi nit taxul mu gëm loola waaye lépp mu dimbali ko ci suñ borom ànd ko muñ ba di nga xamante ni noonu lañ ko jële sànni ko ci teen boo bi yonent yàlla yusufa biñ ko sànnee it ak am njëg jaar fa ñu yoor ak bu di di wut ndox waaye bi nga xamante ni yoor nañ ak buum ci biir teen bi moom ci boppam moo jàpp ci buum gi bi mu génnee mu ne lii day as ngóor la su rafet bi ñu yóbboo ñu jaay ko ci misra buur bi jënd ko bi nga xamante ni buur bi jënd na ko it def ko ab booy li ñuy wax booy maanaam def ko waxambaane waxam dañ koy liggéeyloo ba ni nga xamante ni noonu la ko soxna su buur bi doon sàkkoo mu gàntal ko ba ni nga xamante ni noonu lañ ko tëjee ci kaso bi tëj bu yàgg sax ak ñaar ñoo ñi nga xamante ni dañu waxoon ni dañoo gént fekk géntuñu waaye bi ñu ko ko nettalee liñ ne ko moom lañ gént rek daf lañ koo daal di firil bañ nokkee dañ lay nax it mu ne leen li ma wax suñ borom def na ko ba ni nga xamante ni bañ xamee ni noonu lay mën a firi gént it mu nekkoon nit ku mën a firi gént ndax bokk na ci sart mën a firi gént faaw nit ki nekk ku xam xaqiiqa xam mbiri ruux ak li ci aju yonent yàlla Yuusufa suñ borom daf ko ubboon ci wet googu yi ba ni nga xamante noonu la buur bi génte woon juróom-ñaari nag yooyu muy juróom-ñaari at yu bekkoore ak juróom-ñaari at yu naataange yi bi ñu laajee ñu fàttali ko ne Yuusuf de daan na fi di gént ca kaso ba ci la ko suñ borom dogale ñu génne ko ba liñ ko tuumaaloon lépp nekk lu leer buur bi def ko ab chef def ko mu mu yore trésor public soo ko doon misaal nga xamante ni daal lépp luy alal moom moo ko téye ba juróom-ñaari at yooyu ñu doon wax yu bekkoor yi ak yu naataange yi def téye na dund bi noo xam ni yooyu yëpp suñ borom musal na leen ca ba fi nga xamante ni fa la yonent yàlla yonent yàlla Yanqoo ba dëkke woon bi leen xiif bi sonalee ay bokkam di ñëw foofee di fa sàkku si ab dund ci la leen Yuusufa xàmmee nga xamante nangu leen war a jox ab dund ci lu dul ñu indi rakkam jooji ni ñu koy waxee nag xista bi lu mu ci doon rek dañ koy tënk ndax liñ ci yitteel rek mooy jaar jaar jaar jaar jaar yi mu jaar ci naqar ak tiis ak nattu ak coono waaye nag gis nga fa nga xamante ni fa la mujj bi nga xamante ni fexe na ba jot ci rakkam jooju it ñu ne ko ndax yow yaay yuusufu mu ne leen man maay yuusufu kii sama rakk la yéen ñu ngeen defoon ci man nangam ak nangam bañ na ko ñun kat bu ñu suñu borom jégalu du baax waaye mu xam ne danaa leen jégalu seen borom woo ay woy jërëm ba ni nga xam ne bi ñu yóbbu mbuba moom ci yonent yàlla Yanqooba ba di bàyyam mu tàmbali di gis fekk dafa silma xawoon ba ni yàlla dogal mu indi leen ñoom ñëpp mu mujj leen andi misra loolu lépp di nekk loo xamante ni comme la mu leen wax rek ci la leen indile nag aaya boobu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiyu ajral muhsinina képp koo xamante ni ku ragal yàlla la ci lu nëbb ak ci lu feeñ boole ci muñ natt yi nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala mi ngi ko koy teg ci jëmmam wala ci alalam wala ci njabootam su boobaa na nga xam ne suñ borom du sànk mukk yoolub ñi nga xamante ni waaye rafetal lañ dana leen dimbali ci àdduna waaye dana leen defal teraanga ju sax dàkk ëllëg yowmal qiyaama ndax baat boobu ñu wax cat boo seetloo wolof yi ñaare kuy jur muy faatu danañ ne kooku de catu ko jàpp wala looy bëgg mu jafe la ñu ne kooku catu ko jàpp wala ngay am alal ngay yàqule ñu ne kooku catu ko jàpp wala ngay tawat ak yu mel noonu ñu ne loolu catu ko jàpp yooyu yëpp du cat ndax yooyu yëpp natt la yoo xamante ni boo ko seetloo dafa doon dal yonent yi di dal nit yàlla yi di dal ñu baax ñi kon loolu du nattu waaye li nga xamante ni mooy am nattu mooy nit ki jóg dëggmal boromam subhaanahu wa taala ba ñëpp seen ko mu dëpp loolu yi ñu ñu ko waxee sëriñ Abdou Lahad Mbacké am na jëmm joo xamante ni mas nay waxtaan ak moom xamal ko ne ko cat day du yii koy wolof yi wax yëpp waaye cat day mooy dëgmal sa borom ba ñëpp seen la nga wëññi ko wala iyaasu billaah kon képp koo xamante ni ku ragal yàlla la boole ca muñ na nga seere ne suñ borom du sànk yoolub woy rafetal ñi mukk kon ragal yàlla nit ki su ko defee faaw suñ borom di ko nattu ba xam li muy wone dëgg la ci moom wala déet su su ragalee yàlla nag boole ci lépp la ko suñ borom bi subhanahu wa taala nattoo ci alalam ci jëmmam ci njabootam mu muñ ko te yàlla rek tax na xam ne suñ borom du sànk yoolu way gëm ñi ci àdduna ak ci àllaaxira muy yoolu way rafetal ñi kon noo ngi woon ci téere Nahjul Qadaa'il Haaj ni ñu ko waxee léegi bokk na ci rafetinu teggiin ngay saxal di faj aajoy képp koo xamante ni moo la mat képp koo xamante ni mag na la mu mat la bàyyi wala muy mu féete la mag lépp loo gis ne lu mu yittewoo la ci nekkinam wala ci dundinam nga jàppale ko ca ba aajam joojee faju ngir jëmm suñu borom subhanahu wa taala bu fekkente ni loo mën a wax la ba mu defaru nga def ko bu fekkee loo mën a jëf la ba mu defaru nga def ko bu dee loo mën a tegtalale it ba mu yegg la ba mu yegg ci nga def ko su fekkente ni déglu nga ko muy sàkku aajo na nga mel ni lu mel ni ndaw loo xamante ni daf koy yónni fi béréb koo déggee ko la mat muy sàkku ndaw lu mu yónni fi béréb na nga ko daal di wuyu dem doxal ko yónni nam boobee ba jëm dooja fajo bul wax kenn it bul toog ak kenn di waxtaan ak moom moo xam sa mbokkum jullit la wala sa xarit wala sa lépp lu ma di doon bul ko wax nit li nga wax du dëgg nit bu mu wax mukk ba ba nga ne ko li nga wax du dëgg maanaam baatu fen nga bul ko wax it wax nga lu du dëgg bul ko wax it benn baat boo xamante ni dana ko merloo donte kooka sax moo la féet ak ndaw su waxee loo xamante ni xamoo ko dëggalal wax ja wala nga ne ko man de wax ji xamee ma ko woon noonu wala nangam de la fasewu ma ko woon noonu wala xamee ma ko woon noonu ci xeeti baat yoo xamante ni baat yu rafet la yoo xamante ni daal dana tax nit ku du mer ndax boo seetloo téere bi ni nga xamante ni nit ki noonu ngay jëflanteeg doomu aadama yi soo ko ci toppee yépp daf la koy wax ci gën ngaa rafetee ni anam moo tax mu ne na nga baaxoo saw làmmiñ wax aw yiw wala nga noppi ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne képp ku gëm yàlla ak ab yonentam da ngay wax aw yiw te noppi ci safaan soo nammee wax lenn lu dul aw yiw rek na nga noppi am na benn woykat bu wax ni na nga baaxal na nga aadawoo ci saw làmmiñ fexeel ba mu nekk baax ci saw làmmiñ wax aw yiw ndax mooy tax nga am ab cër ndax làmmiñ lépp lu mu baaxoo wax rek loo ko tàmmal rek loola lay tàmm kon lépp lu mu man di doon seetal nu mu gën a rafete looy sunnawoo daal ci sa wàllu bopp looy jotli ko làmmiñ daal lépp lu muy wone ci kàddu rek mooy la nga ko tàmmal saxal ko ca moo xam aw yiw la wala ab safaan la kon waxtu na del seet nan ngay dollikoo ci lu nëbbu ak ci lu feeñ mu ñëwaat dina xamal ni it bul dox ci lu dul aajo bu nekk jëmm joo xamante ni daal da ngay jékki-jékki rek nga bëri jóg di dem ci garam place nga xam ne jógoo jëm ci lenn waaw jóg naa da ngay dem ci garam place wala naa dem fële waxtaani fa wala nangam ak nangam nit ki sooy jóg di dox da ngaa war a toog sa kër ba am aajo ju far nga jóg doxe ko te delsi waaye di dox ci lu benn aajo loolu yi gënu te dana bijj nit ki jëme ko ci ak kañ ak anaan wala am tiis mu ni la bul ree diiru jamono it bul toll foo toll bul defit foo toll rek di ree ci lu dul kiimtaan gu bir ndax ree mënut a ñàkk léegi-léeg nga dégg ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bis doon na ree ba ngay seen dëgg jëm yi kon ree mënut a ñàkk waaye nag la lay tax a ree na nekk loo xamante ni lu kiimaane lay doon lu yéeme lay doon waaye bul nekk jëmu joo xamante ni foo toll rek di reetaan bul dox mukk it ci lu dul aaja bul nekk it kuy geestu ci lu dul lu ñor ndax loolu bokk na ci màndargam dof te dàqante naa it ay teggin foo toll rek di geestu booy dox sa yére it na nga sol yére yu jot te bul koy wiññi nekk nit koo xamante ni boo solee ay yére it yaa ngi koy ñoddi ba say awra di feeñ wala ni ko gone yi defee léegi ñu baree bare bari ni ñu ko doon waxee ci waxtaan wu ñu fa doon def bërki biig daanaka ñu bari dañ jël culture ci ña ci biti fas yéene ko adapté ci seen biir te fekk yow ña ngay wut di jéem a dox nañuy doxe di wax nañuy doxe nañuy waxe di jëfe nañuy jëfe yow bokk ko ñoom ndax yow ab jullit nga te dafa am fu la lislaam yamale ab jullit nag dafa am fu ko lislaam yamale loolu daf ko war a xam ki nga xamante ni nag doonut ab jullit nga xamante ni moom ci bakkanam la nekk ci bànneexam la nekk ci boyal ci la nekk yow mi ñu tënk wax na ne fii këru kaso la ci yow wuro roy ñooña ne nañuy doxe laay doxe nañuy waxe laay waxe nga gis ñoo xamante ni bu ñu solee tubéy sax tubéy ja dañ koy wàcc ba nga xam ne daanaka léegi mu ak ci seen bëti wóom yi di jaagar jaagar yi doxe noo xamante ni bukkut seen doxin wa ñu xamoon juddoowuñu noonu yarewuñ leen ci loolu waaye jël culture jàmbur mbubboo ko foo toll doxe noo xamante ni kenn xamul doxinu lu mu doon loolu ki am am xel du ko def mukk waaw foo toll summi sa mbubb toog ci béréb saw yoon nekk ci mbedd mi summeeku léegi gone yu góor yi daanaka culture yi ñu amee woon yëpp nga xamante ni mag ñi amee woon nañ ko doon ko yar di ko jàngale ci nekk nga nekk mbañum rus am looy bëgg am looy bañ am looy jomb doo toog ci mbedd di wane yenn melo yi léegi yooyu yëpp sànni nañ ko fële jël culture yoo xamante ni culture yooyu ñoo ko amee doonu ay jullit te yooyu yëpp jullit ñi war nañ ci bàyyi xel ndax loolu bokk na ci ñàkk ay teggin ak ñàkk sàmmanteeg ay teggin te dees na gis it ki nga xamante ni ñaare day wiññi ay tubayam wala di wiññi ay sëram mu bokk ci caay-caay giir gu ñuy wax xasaan ak giir la woon koo xamante ni ñoom day daanaka noonu melo woowu rek moom lañ amee woon adduna nag li fi nekk moo di ñoo doon dégg ñu amee woon melob safaan wala ñu amee woon melow baax rek loolu du jug ci kaw suuf ndax waxtu wu ne li yonent yi alayhimu salaatu wasalaam doon jàngale faw ab période du ci tënk waaye la taxoon suñ borom wàcce lii nit ñu koy génn ci ay nit nit ñooñee ba tey nit ñu ne mel duñ fi jóg mukk ndax mboolem yonent boo jël la ko taxoon ci kaw suuf nit ñaa ngi ci boo seetloo yonent yàlla lool li nga xamante ni moo ko taxoon a ñëw ci kaw suuf ngir tere góor ak jigéen di sëy boo ko seetloo léegi sax dañ koy daganal rasmi yan waaw am na ci xeeti réew yoo xamante ni tey ca mbedd dama lañ koy defee nga xam ne boo toogoon tey ci sa biirum ni fii ci Sénégal da ngay daal di gis góor googu ñaari góor ñu ñuy ñoo xamante ni wane nañ ñi am nañ kayitu mariage ca meere lañ koy defee télévision yu wër leen fu ne ab caméra toppee leen fa nga xamante ni jàngoro la joo xamante ni ci adduna si kenn mën na ko wax ñu di ko wax umu sexuel nga xam ne yooyu yëpp nit ñi nañ ci bàyyi seen xel ab jullit di jóge ci biti war war ñag boppam aar boppam loolu nag ñi ci njëkk mooy njaboot ñi nga xamante ni la ñu njaboot muy fam borom seen njaboot ñu yar leen ci yarub lislaam luy jóge ci biti ñu mën a teqantal xam ne lii du seen ñu mën ko wan gannaaw ñi nga xam ne kilifa yi diine yi diine ñu taxaw ci lu wane ñuy yee nit ñi ci lu nëbb ak ci lu feeñ di leen wax fan lañ war a teg seen tànk ak fan lañ ko war a teg yuy jóge ci biti yëpp ñu yee leen ci ba ñu mën koo xam ba lenn du leen mën a fëkk waaye boo ko seetloo ci yetti wit yëpp bu dee ci borom kër gi nam war a yare njabootam ba mu xàmmee li ko fi ko lislaam yamale ak li bokkut ci lislaam te ñeneen di ko jëfandikoo te bëgg ko imposé mu man koo xam man ko wan gannaaw kooku boo ko seetloo defutul la ko war ndax mboolem ñi nekk ci mbedd mi solu ñu yére wi ñu seen awra ci biir kër yi lañ jógee boo seetloo kilifa yi diine yi la nga xamante ni mooy li leen war ci waxtu wu ne ñuy yee nit ñi ci ndaje yi ñuy daje ak ñoom képp ku jóg ngir ñëw siyaara si leen ngir jëmmi yàlla ñu wax la lu lay jëriñ ci adduna ak lu lay jëriñ àllaaxira ëllëg yowmal xiyaama boo ko seetloo ñoom i tamit seen wàll defatuñ ko la leen ñettal di état ndax ñaar ñooñu su fekkente ne li leen war def nañ ko te état defut li ko war it ba tey dara du mën a sotti boo ko seetloo yett yëpp daanaka kenn defut la ko war ci wàllu googu ngir nit ñi mën a sax ci seen aada ju rafet ji ñu xamoon ci réew mi ak it melow nga xamante ni moom la lislaam bëgg ci jullit ñi ndax tey daanaka waajur yi waxaale su leen ñi nga xamante noonu la ñuy tudd ay nit diine képp ku ci woote ab jataay ba nit ña wuy sa la it leneen ngay wax waaye doo fa wax lenn loo xamante ni lu jëm ci suñ borom la lu néew a néew a néew la ngay gis ku woote ab tànt tey boo xooloon guddi ajjuma ngay xool màggal yi ñuy def ak wala gàmm yeeg wala leneen loo xam ne dañ koy askanale suñ borom suñ borom du ca am dara waaw te moom lañ koy askanale yooyu yëpp nag nit ñi ñoo ko war a bàyyil xel seen bopp kenn ku ci nekk xam ni ngir mu mucc texe làq nga numal suñ borom la gën a kawe faaw mu xam lislaam fas yéene ko jafe ngir jëm yàlla mu ne la na ngay wattandiku di wàññi di wiññi sa biir muy wala di wiñ na ngay wattandiku di wiññi sa biir ak li nga xamante ni mooy li nekk sa diggante jumbux ak sa bëtiwoom boo ko seetloo loolu bu dee ci jigéen ñi la am na nuñ koy tuddee li ñuy sol waaw góor ñi moom ñu ci bari far solutuñ mbubb tubéy yi ñuy sol it kenn mën laa wax tubéy tubéy lu moom nga xam ne yooyu yëpp tey culture benn yeneen i réew la ñuy jël yan ko seen bopp bàyyiwuñ xel ni ñële col gani coloo ñoom duñu ay jullit lislaam it séquñoo moom dara yow mi nga xamante ne da nga ne gëm nga yàlla ak ab yonentam suñ borom wax la melokaan wi nga war wi nga war a mel war nga caa góorgóorlu war caa takk bu baax ndax mu ne loolu bokk na ci wiññi sab jumbux wiññi li digg li nekk sa bu dee góor nga li nekk sa diggante jumbux ba ci sa bëtiwam loolu bokk na ci bàndargoom dof ak réer ak ñàkk kersa te ñàkk kersa bu deñee ci nit rek nit ko doonatul nit ku mat ndax kersa mooy mokk diine nit ki fu mu ñàkkee kersa rek di sut fekkati ci moom diine ba tey mu lay dénk it ne la saa soo xëyee dem ci kër nit na nga ko nuyu bu dee sàkk nga ay teggin boo demee ci kër bala ngay def dara waxal asalaamaaleykum nuyu waa kër ga su fekkente ni nit a la njëkk a nuyu it na nga ko delloo sab nuyoo su fekkente ni yaa ngi nuyu nit di saafante ak moom na nga dëgëral sam ndeyjoor ci ndeyjooram loolu bokk na ci lu ñu rafetlu bul nekk it di nuyu boo nuyu nit ki bul daal di nocc sa loxo ci lu gaaw ndax dañoo sib lool fifin tey loxo jekk-jekk rek boo nuyoo nit ki rek daal di nii léegi nag boo seetloo gone yi ni ñuy nuyoo nga xamante ni sax jàppantey loxo sax léegi duñ ko def dañuy dóorante nii rek yooyu yëpp war na nekk nit ñi lu ñu war a bàyyi nga ñaan da ngaa bëgg a dugg ci néeg nga daal di wëlbatiku rahmatullahi wa barakaatuhu ñëw di dugg ku ne nga wëndeel ko su ko def ndax amaana ca néeg ba loo xamante ni bëggoo gis ko moo tax boo duggee ci rek xoolal ci sa karak te bañ ci fu sa gis fu ne nga di fa xool te bokkut ci ay teggin moom ba tey bokk na ci lim lay dénk it bul ànd ak ku dese mukk ku dese mooy koo xamante ni du la mën a tegtal lu baax du la mën a jariñ ci lu baax waaye loo nekk ci lu baax mën na la caa jële bu dee ci wàllu adduna it du la tegtal lenn lu lay jariñ waaye lépp lu lay jariñ sax moom mu jariñoo ko moom ci boppam sax moo ko ko gënal moom daal du la dolli ci wàllu adduna du la dolli ci wàllu alaxira bul ànd ak it ku kañaan ndax ku kañaan lépp lu jëm si ci aw ci yow aw yiw soo ànd ak moom dana ko fànq képp koo nar a àndal ci ku baax it dana dox sa digganteeg loola bul ànd ak it boromu xemmimteef koo xamante ni sa alal rek la bëgg wala saw melo wala dafa am lu mu la bëggal ndax loolu yi mu bëgg ci yow heure bu ko amee it war la gannaaw mooy tax booy àndal bul ànd ak ku dese koo xamante ne ay xalaatam rafetut ay jëfam rafetut ay pas-pasam rafetut wala nga ànd ak ku kañaan koo xamante ni waxtu wu ne lépp lu jëm si ci yow aw yiw dana ko kar bu dee nit la bu dee lu ñuy jariñoo la. wala koo xamante ne xemmem rek ci la ànd ak yow yooyu yëpp it na nga ko ñett ñii daal képp kuy wut àndandoo na nga leen teet su fekkente da ngay wut koo toogal it bul toog ak kudut koo xamante ni dana la dolli ci sa wàllu diine wala ci sa wàllu xel loolu mooy tax nga am la nga bëgg mooy tax saa soo bëggee toog ak nit na nga seet ba xam jëmm ji ngay bëgg a toogal da nga fa dolli ko ci sa wàllu diine wala nga dolli ko ci sa wàllu xel ngir lu lay jariñ ci nga mën a liggéey mën a téye sa ragal yàlla wala nga mën a jariñu ci xel moo xamante da nga xam ni ngay jëflante ak nit ñi ba dooloor kenn ci say waxin wala ci sa jëfin ndax dañoo wax ne kat nit ki ku mu mën di doon rek ab xaritam na mel ñaare noona lay mel nit ki soo ko bëggee xam sax ñaare laajal ñan lay àndal ñaare ñooñu nuñ mel rek moom itamit noonu lay mel Seydina Ali karamallahu wajhahu daana wax ni soo bëggee ànd ak booy wut àndandoo bul ànd ak ki réer maa ngi lay wattandikuloo te di la ko wattandikuloo na ngay wattandiku di ànd ak boroomu réer ndax ku réer kat foo àndeek moom dana la lor ci adduna waaye dana la lorit ca àlla ca àllaxira ndax bariwaa na aji réer koo xamante ni alag na aji xam aji lewet ndax su fekkente ni yow kat melo yu baax amee woon melo yu rafet su yàggee moom ca réeram googee dana la dugal ci musiba moo xamante ni dana la alag ndax waxtu wa nga mbokkook moom di jéem a ànd ak moom ci boroomug réer saa soo bëggee mbokkook moom di ànd ak moom bëgg a xaritook moom rek ñaare dana la alak moo tax muy la booy ànd ak bul ànd ak ku réer ndax bariwaa na aji réer koo xam bariwaa na aji le- aji réer koo xamante ne alak na aji lewet ci waxtu wa mu ànd ak moom ndax nit ki ci nit ki rek lañ koy xiyaas ndax nuroo na ak moom wala ndax dox na ak moom nit ki kam àndal rek ca lañ koy natte nu mu mel rek ñaare moom itam noonu lay mel dafa mel ni dàll dàll wu mu doon rek ci moroomu dàll ba ci lañ koy natt boo bëggee xam dàll wii ndax mu wii ànd rek boo leen jël natt leen noonu la ñuy mel mbir mu mën di doon rek ca la nuroog moom ca lañ koy xiyaas ndéem nuroo nañ xol ci xol ab tegtal la ndéem daje nañ mooy tax am beneen woykat bu wax ni su fekkente ni dangaa nekk ci aw nit na nga seet ñay ñay tànneefu nit ñooñee nga ànd ak ñoom waaye bul ànd ak aji aleku ba da nga alku ànd ak way alku ña mooy tax nit ki képp koy àndal na nekk koo xam ni ku ragal yàlla la ku maandu la ku rafetal la dana la dolli ci sa diine waaye dana la dolli ci saalu xel moo tax beneen waykat wax ni nit ki bul ko laaj waaye laajal kan lay àndal laajalit kan lay xaritool ndax képp ku man di doon kat kamay àndal ca lay roy mu ne la it bul nekk nit koo xamante nii dangay sàkk waxtu wu ne ay pakk bul gëstu it awra maanaam foo toll ngay seet lu ñaaw ci nit ki loo mën a wax ci doxinam wala ci waxinam wala ci jëfinam nga xam ne nekk nit koo xam ne daal lu ñaaw rek ngay xool ci nit ki bul koy def mukk bul nekk nit koo xam ne foo toll it pakk rek ngay xool sa diggante koy mën di àndal loolu it bukk ci ay teggin ñu bàyyi xel ni téere bi ci arab lañ ko def waaye nag nun noo tànn di ko waxe noonu ci wolof ndax mu gën a leer ci doomu aadama yi waaye mënoon nañoo wax bayit wenn wu ci nekk ñu tudd bayit wi ci arab door koo indi ci wolof mooy tax nit ki képp koy àndal na nekk koo xamante ni koy dollikoo la ci moom ci wàllu diine ak ci wàllu xel ndax nit ki moom noo bëgg a mel rek seetal ñemel noona nga ànd ak ñoom bu yàggee nga mel noona ba tey am na beneen woykat boo xam ne bul sàkk mukk ci ayibi nit ñi nit ñi la nga xamante ni suturaal nañ ko di ko nëbbu bul koy yow di yittewoo di ko génn ci biti ndax nit ki su fekkente ni def na loo xamante ni waru ko def wala mu wax loo xamante ni waru ko def wala mu def ay rëcc rëcc ci ay ñaawteef ci kàddu wala ci jëf bul dem mukk di génne loolee ca biti di ko weer ndax looy léegi booy def loolu kat léegi tey suñ borom subhanahu wa taala xotti sa sutura ci sag maas waaye nekkal koo xamante ni da ngay suturaal nit ñi ci seen i pakk-pakk ak seen i tolof-tolof yi nga xamante ni dox na seen diggante ak seen borom nga suturaal leen ci te bañ koy wiññi waaye nit ñi fuñ fuñ tuddee nit rek yow la nga xam ci moom ci lu baax na nga ko wax waaye la nga xam ci moom ci safaan lépp na nga ko denc te nëbb ko ndara bu nekk dafa nekk koo xamante ni ab saay-saay la bu biru caay-caay nga xamante ni su ko feeñalut mën na caa yóbbaale nit ñu bari wala caay-caayam googee mën na koo mubboo teg ca lu baax ngir mën a war nit ñi suba loolee war nga ko wiññi ngir labiri nit ñi waaye nag koo xamante ni la muy def xëy na ay ay tolof-tolof la wala ay pakk-pakk la yoo xamante ni lu ko dab la su boobaa nag bëgguñu mukk nag ngay toog fenn di wiññi sutura nit ki wala ngay xaw yi suturaam loolu di su ko def waaye nit ki fu ñu ko tuddee yow la nga xam ci lu baax na nga ko tudd te yàlla rek tax bul nekk koo xam da ngay ayibal kenn ca la nekk fa moom nekkal ki nga xamante ni ni ko nga xam ne noonu la ko borom woykat bi waxee man de bëgg naa jikkoy rafet yi te danaa ci def sama kem kàttan damay bañit di ayibal kenn ni nga xamante noonu laay bañe man ku ma ayibal nit ki ni nga bañe ku la ayibale sàmmonteel ak it yow tamit boobul ayibal kenn mu ni danaa jëlale ci ŋàññi yi ma nit ñi ŋàññi ngir ak lewet nit ku baax it léeg-léeg nga dégg nit wax la wax ju ñaaw jëw la ko wala mu wax ko ci ci jataay waaye yooyu yëpp mu ni man de danaa koy jéggale ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa taala ci lewet lewet la ndax ki yées ci nit ñi kat mooy kiy bànneexoo di ŋàññi nit ñi mooy ki yées ci nit ñi am na ñoo xamante ni daanaka bala ñoo am bànneex rek fekk ku baax ñu teg ci moom ab safaan waaye képp koo xamante ni foo toll yaa ngi ayibal nit ñu baax ni day mujj ñëpp lay daw ñëpp lay ragal te képp koo xamante ni ba tey it xeeb na góor ñi it kenn du ko jox benn cër rafetal na lool ki nga xamante ni wax na su fekkente ni bëgg ngaa dund sa diina mucc sëb cër du lu ñoŋal sab der di ñoŋ saw làmmiñ bul ci tudd awray kenn bul tudd ci kenn ci saw làmmiñ ci lu ñaaw su fekkente ni bëgg nga sa bëgg ngaa dund sa diina mucc sab cërit ñoŋ sab derit ñoŋ bul wax kenn lu ñaaw ndax am ngay xawra te nit ñi it am nañ ay làmmiñ te koo wax lu ñaaw bu dutum muñkat mën na laa delloo lu ñaaw la fa yow bu fekkente ni say gët dem na ba xool gis ayi bi nit waxal say bët ne ko bul xool awray jàmbur ndax nit ñi kat am nañuy bët ni ma amee bët ba tey mu ñëw ci teggin yi nga xamante nit ki war na koy sàmmanteeg ba lépp lu mu wax def ko lépp loo wax fas ko yéene def bañ a bokk ci jamonoy tey ji nga xamante ni daanaka nit ñi wax lu dëgg defatuñ ko muy dara danaa fa ñëw danaa la defal nangam danaa la waxal nangam loolu defatuñ ko muy dara lépp luñ ci wax rek dañuy wax rek di wàcc te loolu bokk na ci yonent bi xadis bi nga xamante ni doon na ko wax bokk na ci màndargam naafiq mooy koo xamante ni lépp lu mu dële du ko def moo tax mu ne xamal ni wuute ab dël danaa ñëw béréb sàngam te doo dikk wala danaa wax nanga danaa la defal nangam te doo ko def ak wax lu du dëgg bokk na ci li nga xamante ni waxtaan wu yàqu yaar yooyu ñoo ko yàq kon moo tax mu ne la ñaar yooyu na nga ko wattandiku la wax lu du def ak wax lu du dëgg nekk na ci waxtaanu ki nga xamante ni danañ saxal di julli ci moom ak i ñooñam ak i saxaabaam maa ngi leen di dénk fu ngeen toll na ngeen nekk di way dëggu te ngeen di teet wax lu dëgg loolu mooy tax ngeen mën a kawe mooy tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon wax ci benn xadis maa ngi leen di dénk na ngeen dëggu ci seen kàddu gannaaw ci seen pas-pas dëggu it ci seeni jëf ndax dëgg mooy gindi nit ki jëme ko ci baax te baax mooy bijji nit ki jëme ko ci aljana nit ki du deñ di nekk kuy dëggal ba def ne tàndale ba bind ko fa suñ borom mu nekk si di xan waaw nit ki su fekkente ni ku dëggule ci waxam ak léppam dana mujj sax ba juumoon sax ba wax lu du dëgg sax nit ñi dañuy wax ne bu bu dee diwa ko wax rek day dëgg la ñaare ku dëggu dana dem ba àgg ci lépp lu mu génneeti rek dañuy wax ne bu dee diwa ko wax rek dëgg la bu ko nit naxoon ci ay wax sax ba mu wax ca ñëpp dañuy wax ni la mu wax dëgg la ba saa su loolay wiññiku yi danañ xam ni sax loolu du woon waxam xëy na nit a ko sërxal ci ay wax wala leneen yonent bi daana waxe ni maa ngi leen di dénk it wax lu du dëgg ndax wax lu du dëgg day bijj nit ki jëme ko ci caay-caay te caay-caay day bijj nit ki jëme ko ci sawara nit ki du dañ di wax lu du dëgg ba dee fi nattale fi moom ne diw day waxkatul lu du dëgg la ba def si bind fa suñ borom subhaanahu wa taala kisaaban diw day waxkatu lu du dëgg la kon wuute ab dël ak wax lu dëgg jullit ñëpp war nañ ko watandiku nit ki war nay sàmmante kàddoom ba lépp lu mu wax parce que yéene def ba tey mu ñëw ci teg gi nit topp ñaari way jur mu ne la na nga topp say ñaari way jur te nga ñeewantu leen nekkal di aji gaawe jëm ci seen ñaari ndigal ñoom ñaari way jur na nga yewwu ci lépp loo xamante ni tere nañ la ko nga teer ko ñeel sa borom subhaanahu wa taala ndax loolu mooy tax nga dolli ko ak kawe képp koo xamante ni gannaaw ba nga toppee sa ñaari way jur it say magit na nga leen topp ngir jëm yàlla te weg leen ku dut ñoom ñooñu ci nit ñi na nga ànd ak ñoom ci jikkoy rafet ndax mooy tax suñ borom subhaanahu wa taala bëgg la na nga rafetal say jikko ci yaatal leen ak ñeewantu ci ñoom loolu mooy tax ñu sopp la na nga nooyal say wax ci nit ñëpp ndax loolu bokk na ci màndargam way ñaw yi ndax wax nañ ne kat genn wàllu xel mooy bëgg-bëgg lu jëm ci nit ñi te yàlla rek tax bokk na ci tex ak jëmm ji it fépp fu mu jublu xolub képp ku ko yaakaar mu bañ koo delloo bañ a tas yaakaaram xolub képp kuy aji gëm nga fexe ba nga koy bañ a delloo bañ a tas yaakaaram te yàlla rek tax ba tey gannaaw teg gi ni ñaari waajur yooyu noonu nga leen war a toppe war a ñeew am ak ñeewantu ci ñoom jëfi seeni digal teet seeni tere te yàlla rek tax wekk say mag ak mboolem nit ñëpp mu ne la it na ngay siyaare tànnee fi boroom xam-xam yi ak nit ñu baax ñi ñi nga xamante ni ñu am xam-xam lañ te di ko jëfe foo toll na nga leen di siyaare ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala da nga leen di liggéey yëlet ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala ci wépp waxtu mooy ñi nga xamante ni borom xam-xam yi koy jëfe lañ ak ñi nga xamante ni ñuy jëfe ndigali suñu borom bi lañ subhaanahu wa taala da ngay sàkku seenu ñaan foo toll na nga nekk di barkeelu ci ñoom loolu dana tax nga dolli ko ak njub ndax màggal borom xam-xam boo xamante ni jëfe na xam-xamam bokk na ci màggal suñu borom subhaanahu wa taala ci li nga xamante ni tuxal nañ ko soo fi àndee koo xamante ni jëmm joo xamante ni moo la mag bul denc di ko wekk mukk moo xam ci tukki ngeen ànd wala ci lu dul ab tukki na ngay na na nga koy yëkkati ca kaw fépp fu ngeen ànde bu dee fu ñu war a toog la fu kawe wala ab lal la la bu ngeen bu ngeen àndoon dal ci kër benn lal nekk fa bàyyee ko ko bu fa benn basang nekkee bàyyee ko ko bu dee lenn jumtukaay la loo xamante ni lu ñu war a xewloo la it wala lu ñu war a jëfandikoo yooyu yëpp na nga maanaam na la cay gënal sa bopp te ngay muñ yooyu yëpp te di ko ko féetale moom ngir jëm yàlla na ngay toog ci suuf te bul nekk it di toog ak moom ca kaw jëpp jëmm ju la mat bul di toog ak moom ca kaw waaye na ngay toog ci suuf te bàyyi ko mu toog ca kaw doonte daf laa woo sax ngir bëgg laa yaatal ah toogal ci kaw mën ngaa toog ci kaw yooyu yëpp it bu mu la tax a yow toog ci kaw xamal yow fa nga war a toog nga toog fa ci jëpp jëmm joo xamante ni moo la mat nga jëf ni deg moom yi te yàlla rek tax ndara nag loo xamante ni day lor wala lu munta ñàkk su ngeen bokkoon toog ci wata wala ngeen dem ci yenn béréb yoo xamante ni laajul na ngay toog ci suuf muy toog ci kaw su boobaa nag mën ngaa ànd ak moom toog ca kaw saa su aw ñam dikkee ci yéen ñaar wala ak naanit bu nekk di ko ci jiitu daal di ubbi ndab la daal di raxas daal di tàmbali loolu lépp bul ko def waaye na nga déglu ndigalam néggandi ko ndigalam ba mu jox la ci ndigal ndax loolu mooy ak njub bokk na ci lii teggi ni ki la mag lay wax waaye te uuxut sax teggi ni kiy sàkku xam-xam ci kim koy sàkkoo muy sëriñ buy jàngale waxuti taalib bi nga xamante ni day sàkku yàlla ci kim koy sàkkoo loolu ku mel ni sëriñ Fallu indi woon na ci bis benn misaal mu dugg ci terrain ànd ak benn taalibe ci saxaar gi taalib bi mu yegsee rek daal di toog ci suuf sëriñ Fallu na ko jógal toog fii waay mu wax ko wax mu jóg mu forcé ko ne ko toogal ci kaw ba mu toogee ci kaw bi mu bi mu toogee tuuti rek la jënn jëmm joo xamante ni ma nga man bi ba xamut fu mu nekk boole ca di tux ñëw di wër place bu mu toog te kooku bu fekkante ni taalibe bi toogutoon foofa rek kooku bu ñëwee day daal di toog foofu moom ndax xamut booba àq wala yooyu yëpp moom kooku moom yëgu ko yooyu yëpp dafa bokk ci tey ci misaal yoo xam ne mas nañ ko indi mas naa dem ci bureau gouverneur it ànd ak koo xamante ni ba tey doom la ci moom kookee dafa bëgg daal di toog ci suuf mu ne ko déedéet fii du fi bureau bu toog toogaayu suuf toogal ci kaw yooyu yëpp nag nit ki su fekkee da ngaa ànd ak sa kilifa it ci yenn béréb yi it day am loo xamante ni laajul ngay toog ci suuf muy toog ca kaw waaye da nga mën a ànd ak moom toog ci toog ca kaw ndax loolu daróoru yi la lu mënta ñàkk la boo ànd ak moom di lekk it na nga lekk lekkin wu rafet bu dee lañ teg ca kaw it deel dagg di ko tegal di ko ko fuugal ci kanamam te bañ a mel ni gone tey fu ñu bokkee amu mag daanaka lépp loo xamante ni luñ ca teg la dañ koy daal di bëgg a aakimoo bàyyi mag ña loolu lépp gënu gone su bokkee mag day tey loxoom ci kanamam lépp mu gënal ko mag ma tegal ko ca kanamam boo àndee moom ci tukki it lépp lu mu bëgg muy koo kii la féet ak mag dee ko ci liggéeyal muy wala kooku nga xam ne borom xam-xam la wala ku baax la dee ko liggéeyal ci lépp lu mu aajowoo ay aajoom yëpp dee ko faj ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala su fekkente da ngaa ànd ak mbooloo yi ci tukki ngeen di tukki na nga leen di dimbali ñoom ñëpp ca la ñuy aajowoo te yàlla rek tax soo àndoon ak mbooloo ngeen ànd di tukki ci biir tukki bi lépp luñ ca yittewoo na nga leen ciy dimbali seen aajo te yàlla rek tax na nga leen di liggéeyal waaye na nga leen di sàmmal seeni waruwaay yi ñu war bu dee fas la wala lu mu doon rek dee ko jox ngooñ wala nga koy jox lu mu lekk wala lu mu naan te nga leen di sàmmal seeni bagage su fekkente ni génn nañ dem fenn bagage ya nga xamante ni amee nañ ko nga di nga di ko sàmm su fekkente ne mbooloo muy tukki lañ dem bitim réew fa ñu dal kenn ku ci nekk na sàmm bagage yi morom ma ku ca génn it ñu sàmmal ko ay bagaasam te bañ a nekk ñoo xamante ni dañuy mel ni ay bayima ku génn rek ñu fas yéene seet la nga am ñu yóbbu ko yooyu yëpp nekkul jikko yu rafet nekkul pas-pas yu rafet waaye dañu ne war a boole seen bopp nekk benn kenn ku ci nekk sàmmal morom ma ay bagaasam ci teewam ak ci guuteem ñoom ñoom ñëpp na nga leen di dimbali sa kem kàttan te ngay dog ngànt it ku ca sàgganit ba wax lu mu wërta wax wala mu jëf lu mu wërta jëf it na nga dog ngànt ci moom jéggal ko xam ne doomu aadama moo matadi te coonub tukki it wala nit ki koo àndal ànd bu yàgg rek léeg-léeg dara feeñ loo xamante ne xëy na bokkut ak la nga foogoon waaye loolu lépp it ngay jox nit ki ngaan xam ni doomu aadama it moo matut ba tey it muy dénk it ndaw ñi ci liggéey nit ki dafa war a nekk ku ku ku ku nangoo liggéey loxoy neen nangu woo def dara akum nooflaay rek foo xëyee tëdd rek ngay bëgg di def amoo benn métier loolu it ndaw waru koo def ndaw li mu war a def fu mu xëyee bépp liggéey boo xamante ni lu dagan la mu bañ a am réyub def ko lépp loo xamante ni dana ko tax mu mën a téyel ak ragal yàlla am na koy def waaye fo yore loxoy neen rek loolu ndaw du ko def ndaw it wëtt rëy liggéey ci lépp loo xamante ni lislaam daganal na ko waaye loxoy nee na comme nooflaay du tax a am la nga bëgg mukk du tax a am wenn yiwit te loolu it la muy waral ci ki nga xamante ni ab taalibe it mooy lor rek mooy tax nit ki li ko war mooy boole jaamu yàlla ak liggéey te lu ci na it mu sellal ko ngir jëmi suñu borom te bañ a rëy def benn liggéey donte da ngaa jàng wala lépp loo mën a jaar te yàlla dugalut nga amee ca loola métier it bul xeebit yeneen i métier yi waaye métier mépp moo xamante ni lislaam daganal na ko gërëm na ko na nga ko jéeme métier woo ngir mën a am loo téye sa ragal yàlla ndax kat tedd nga kenn mënu ko am ci lu dul ab coono kenn mënta am lu baax te sonnoo képp bu la yàlla dimbalee nga sàkku ba am wërsëg it képp koo xamante ne sàkku na ci yow dara te yàlloo ko na nga ko ko jox ci lu dul ngay xiiroog moom wala ngay ŋaayoog moom wala ngay xëqante ak moom bul nekk mukk di aji nay ci poño xiitum adduna mii nga xamante ni lépp luy jeex la ba ëllëg suñ borom dana tax loolu yi dana tax ëllëg suñ borom geccel la ëllëg yoomal xiyaama ndax naykat ku sori yàlla la ku sori mbindeef yépp la te képp ku nayit kuy dugg sawara la wala xiyaasu billah def na ko dàkku it aljana wommat ko dugal ko sawara wala xiyaasu billah boo gisee alxuraanul karim bokk na ci jikko yi nga xam ne mooy jikko yi yées ci doomu aadama mooy nay moo tax suñ boroom wax ne wa man yuuqa suhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun ñi nga xamante ni dindi nañ seen bakkan la cay nay di leen teree joxe bëri nañ ak moom ba loolee dañ ñooñee ñooy woy texe ñi boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wasallam mas nay waxtaan ak Seydina Abu Bakr ne ko suñ borom day am na ñetti téeméeri jikko ak lu topp te ku ci jikko woo benn suñ borom dugal la aljana mu ne ko jikko yooyee ndax benn ngi ci man mu ne ko yëpp a ngi ci yow waaye jikko yooyu ba ca gënal suñ borom mooy tabe joxe sa alal te yàlla rek tax ci ñi ko aajowoo mooy tax nay boo ko seetloo sax yéefar bu tabe du dem aljana du dem safara kon nit ki na nekk ku tabe ci li nga xamante ni suñ borom wërsëgal na ko ko mu cay joxe te yàlla rek tax ndax li nga am xamoo kañ kañ lay ko suñ borom di nocc ci say loxo te loo ci jëfalut yàlla amoo ko ci mooy tax nit ki su ko yàlla wërsëgalee muy liggéey ba am wërsëgit na cay génn ak yàlla waaye na cay liggéey yàlla it ci mbindeef yi te yàlla rek tax safaanuk nay nag mooy tabe kon na nga nekk ko tabe tabul nekk ko nay kon danañ mën a yamadi foofu yi su ko defee képp koo xamante ne am na lu mu bëgg a leerlu mu mën cee ñëw insha allah